arbitre yaa ngi wax ak ñoom rek li làmb bëgg ak li làmb bañ diggante Déranger Bass Junior Déranger mbër bu xees bi moo sut Bass Junior mbër bu gàtt bi Déranger moo leen fare seen ndeyjoor Bass Junior moo leen fare seen càmmoñ Déranger ngi dox ci kawam ah Bass Junior nga arrière Déranger ngi dox ci kawam Déranger ngi dox ci kawam Bass ngay arrière Bass Junior ngay arrière lamb ji nag lamb ju gaaw la nar a doon premier combat la soirée a ah, journée Ahmed Thiola la ilaha illallah a ah, ah, Dranché door na ko épingle Dranché door na ko génn nan ñoom ñaar la ilaha illallah a tey nar daa neex Dranché mi ma gis xale Mbàkke xale ginnaaw raay Dranché bu Mbàkke ngi noonu door na ko moom génn la ilaha illallah diggante Bass Junior ak Dranché ña ngay léewatoo ña ngay damante ay loxo ña ngay damante ay loxo ña ngay damante ay loxo Bass Junior sañ na góos waaye Dranca moytu na ko diggante Dranca Bass Junior Dranca door na sànq jàppante nan ñoom ñaar jàppante nan ñoom ñaar jàppante nan jàppante nan jàppante nan ñoom ñaar Bass Junior laay laxalal Dranca jël bu Déranger daan na Bass Junior jël bu rëy laa ilaaha illallaah Déranger bu Mbàkke daan na ko Déranger bu Mbàkke daan na Bass Junior jël bu rëy laa ilaaha la Mbàkke baa